télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission faram fàcce euh, ni ñu koy amalee mbokk yi euh, àllarba bu jot ci waxtu bi ñu dikk ak yéen ci émission bu yittewoo waxtaanee tolluwaayu réew mi euh, ñu koy amal en direct ñu am ci mbégte nag bu mag tey di ci dalal gan gu mag nekkoon nekk nekkoon fi premier ministre fii ci Sénégal jiite parti politique bi du UNP. Euh, bokk jëmu maître Souleymane Ndéné Ndiaye la ñuy recevoir mbokk yi tey euh, ci seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média maître maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne. Mhm. maa ngi nuyu également téléspectateur u TFM yëpp di nuyu waa TFM yëpp. di ñaan yàlla suñu émission bi amal njëriñ askan wi. incha allah wax naa ko léegi UNP nga jiite muy parti politique boo xam ni eh, pare woon na pour bokk ci élection yi présidentielles yi. Euh, daanaka jëloon nga fiche de parrainage. Euh, gannaaw bi nga génn ci lu ko sabab loolu. <coughs> donc yow doo suivre actualité. ok euh, man demoon naa deuxième tour parrainage. waaw. Euh, demoon naa ba am quarante mille cent soixante quatorze parrain. si si man loolu la wax d'ailleurs. ñu ne <coughs> dama manqué. Mhm. quatre mille parrain. Mhm. waaye. lu xaw a doy waar lañ ma kole comme motif ñu ne dama am 16008 parrains yoo xam ne ils sont inconnus au fichier général des électeurs bi ma defee requête ci décision bi conseil constitutionnel rendre euh, pour. Euh, mu concerne la yow ñi ñi non ñi déposé woon ñëpp recours dañu leen boole benn décision bu benn arrêt. Mm-hmm. ñuy lim kenn ku nekk. requête bi nga déposé argument yi nga avancé ak réponse bi la conseil constitutionnel di jox conseil constitutionnel mu ne 16008 personnes yooyu kenn xamu leen ci fichier bi et pourtant am nañ tour am sant am numéro carte électeur am numéro carte d'identité nationale ñu teg ci ne. Euh, dañu inversé date d'expiration euh, carte d'identité yi parce que xam nga carte d'identité Sénégal ni euh, disons Sénégal ak Guinée Conakry rek beneen dëkk en tout cas bu am culture française dañuy def jour bi def mois bi mhm. def année bi mhm. mais li bizarre mooy man samay parrain yi ma déposé ñu ne de 16000 yi dañu inversé date d'expiration carte yi ba pare ñu rax ci yi de bi sama mandataire di yegsee di déposer dossier euh, dañu euh, nee nañ bi ñu ñëwee rek euh, dañu jël bagage yi indi yëpp denc ko alors que demeewul loolu bu mandataires yi yegg see dañu jël sa carte sa sa clé USB copier ko ci ci ordinateur bi bu ñu ko copier bu pare pour xam pour Saint-Louis pour région Sénégal 14 régions yi benn bu nekk la nga ca la nga ca am alors euh, après la deux une semaine après. ci la magistrat yi daje parce que boo koy déposé benn magistrat du fa taxaw greffier en chef bi donc moo fay nekk ak ay informaticien ngay déposé parrain physique yi déposé wala clé USB mais clé USB bi duñ ko sele boo yegsee rek dañ ko dugal ci ordinateur bi na la yaa gis région de Dakar am nga nangam région de Kaolack am nga nangam et cetera génnewaat ko ci machine bi dugal ko ci enveloppe ne sele nañ ko alors bi ma leen wanee loolu ñu ne noo loolu mënul la nekk. ndax ba ñuy examiner sa sa parrain yi c'est devant ton mandataire xam nga euh, loi bi créer conseil constitutionnel moo ne décision bi conseil constitutionnel di rendre. Mhm. elle n'est pas susceptible de voie de recours. d'accord ok kon nag. <coughs> après j'ai constaté que tout le monde. d'accord ok d'accord alors foofu nga foofu nga daaneele sax euh, foofu laa bëgg ñu taxaw ci alors donc yow dégg dégg droit dégg loi. moo tax bi nit ñi di xeex pour bokkaat di def seen ay recours ak ci seen ay plateforme yow bokkuloo ci. non bokkuma ci. alors automatiquement da nga choisir sa candidat pour jàppale ko muy Amadou Ba. voilà exactement. alors mais loolu dafa gaaw aussi. waaw mais non du affaire gaaw. man xam naa ne waaw. xam nga nga jël coup d'épée dóor ko ci ndox du mujj fenn bu conseil constitutionnel rendre décision il faut être réaliste xam li mën a nekk ak li mënta nekk man xam naa ne d'ailleurs président Macky Sall mi ñu seeti woon xamal na leen ne. amul beneen pexe gannaaw bu conseil constitutionnel rendre décision kon nag man avocat laa am na démarche yoo xam du ma ci dugg parce que xam naa du am suite du benn conséquence loolu moo tax bokkuma ci loolu et ensuite rax ci dolli également nekku bu fóon bi ngay bi ñuy construire seen kuréel googu amaana sax bu ma fi nekkoon du ma ci bokk parce que xam naa du mujj fen man nag du bokk ci loo xam ne du mujj fen alors mais mais man li ma jaaxal. Mm-hmm. Euh, li ma jaaxal euh, mooy. mais politique ngay def non. waaw. opposition nga nekk non. oui bu baax. waaw mais loolu noo ko mën a expliquer. ah mais c'est-à-dire même bu fekkente ni loolu moo am. waaw ngay def politique. waaw nga nekk dans l'opposition. Mmh. plateforme bi ñi ci ëpp. Mhm. daanaka ci opposition bi la nekk. mais yow nga jàpp ci. est-ce que yaakaarul ne mën na la mën na leen indil. du leen indil dara. la preuve ba ñu demee kañu seeti woon xamal na leen ne li ngeen ma seet si aw ma ci pexe. amul ci pexe lan la président Macky Sall mënoon a def gannaaw ba ñu ko seetee lan la mënoon a def mun la woo conseil constitutionnel munul ne décision bi conseil constitutionnel daan dama koy teg fële jëlaat leen dugalaat leen ci jeu bi munu ko def. waaw mais li PDS def nag. li li wallu groupe wallu. waaw li ñu def. concernant seen candidat. waaw waaw mais. li président Macky def est que yaakaar nga jaar na yoon jaarul yoon la preuve conseil constitutionnel toj na ko. gis nga nañu réaliste non mais ni ko conseil constitutionnel tojee yow ànd nga ci loolu. bu baax laa ci ànd mais def naa fi bokk naa ci benn émission fii avant même conseil constitutionnel di statuer man leen may lii. loi constitutionnelle bu jógee assemblée nationale. dem foofu ci conseil constitutionnel. loi loi bi ñu voté assemblée nationale di fixer datu élection elle n'est pas conforme à la constitution c'est ça la vérité président Macky Sall amul droit amul pouvoir parce que yokk mandat mooy nga abroger euh, euh, décret bi nga xam ne moo convoqué le corps électoral groupe parlementaire am xaw ma groupe parlementaire beneen def proposition de loi pour ñu jàpp beneen date pour élection assemblée nationale lu bokk ci ay attribution projet de loi. assemblée nationale waxuma projet de loi. proposition non, mais, mais, de loi mais proposition pour, de loi pour pour proroger pour fixer datu élection. loolu du bokk ci ay attribution xam nga ñu ko tuddee loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la constitution kenn xam ku jàng ku nekk droit xam nga ne loolu ñu def teguñ ci yoon teguñ ci yoon moo tax conseil constitutionnel xam nga conseil constitutionnel dañ fa dajale juróom-ñaari euh, juriste yoo xam ne kenn bokkul foo jóge ak sa morom am na avocat bu fa nekk ñu ci des ay magistrat la yoo xam ne ñoom ñëpp dajewuñ ñu formé doo leen enam kenn ku ne da ngay àtte ak sa axulay tala ki ko jiite Badio Camara ki ci topp madame Aminata Ly Ndiaye et cetera et cetera ñoom ñëpp ñoom manko ne décision bi président Macky Sall jël jaaduwul loi bi assemblée nationale votée jaaduwul ñu ne léegi nag bu autorité yi nga xam ne ñoo war a euh, jàpp bésu élection ñu gaaw jàpp bésu élection li àttee ci yoon lañ ko teg. kenn mënu ci dara. Ah, mais xam nga ni yàgg nga gis ay proposition de loi yu jóge assemblée nationale dem conseil constitutionnel presque ñu.